wax boo mas a wax. ci temps wu 2011 2012 yi. ça nous avait fait rire en rédaction. parlant de Idrissa Seck. nga ne Idrissa Seck fait ci espèce politique yi gën a paresse. sa du liggéey waaw loolu la dans la jouissance la gëm. wax bi tegginewul de. mais gëm. pourtant demoo ci kaso. non dafa ndànk tuuti ma wax la. wax ji tegginewul ni nga ko waxee woon dafa metti. ah mais bay ma pourtant demoo ci kaso. waaw dafa ndànk ma wax la. xam nga boo dee méngale euh, Idrissa Seck au pouvoir Abdoul Aziz Diop dans l'opposition dans de débats démocratiques si ajoute que dafa am période boo xam ne nii gis nga am na période boo xam ne nii boo saaga président dara du la ci fekk. Ablaye Wade teg na ko façon. wax la xaaral xaaral wax la xaaral ma wax la xaaral ma wax gis nga Ablaye Wade su ma ko saaga woon rek mu rey ma Ablaye Wade wax ko lu la neex ma wax la ma wax la ci lay Wade dara pour mu leer gis nga président Ablaye Wade. Sénégal ba àddina tukki du am démocrate bu ko sut ci démocratie maanaam gëm gu mu gëm démocratie fas yéene koo dund. Ablaye Wade li mu bëgg a def ci réew mi ci wàllu koom-koom wàllu mbay ak beneen wàll amul benn doomu aadama bu mën a taxaw bu tee mu def ko waaye ci biir lim def googu mu koy def yow citoyen bi sañ nga ko ŋàññi façon ŋàññi bu ne waaye bu ko saaga. Ablaye Wade lu dul ŋàññi bu dul bu jinne ŋàññi naa ko. mosoo ci dem ko mais ma tuuti xaaral tuuti ma ñëw. ŋàññi bu dul bu jinne ŋàññi naa ko ci bind. nous avons choisi la république. téere bi ma génn en 2003. 54 chroniques yëpp dama ŋàññi yorinu réew ma. mais amul mais ma tuuti mais amul fenn fu ma ko saaga. gis nga ba ko ay ñooñam ne Abdoul Aziz Diop daf ñu sonal. ndax mi ngi ci ñun guddi mi ngi ci ñun bëccëg xam na la leen wax. ci lu luñ ma jot ci lu ñu ma nettali. te ki ma ko nettali lim ma wax am na ndax jege woon na président Abdoulaye Wade daf ni ma ba ñu ko waxee dañi est-ce que mën ngeen koo tontu ñu ni yàcc mu ni Abdoul Aziz Diop exprime son opinion bu ngeen ko mënee tontu ngeen tontu ko dafa may ma tuuti ma ñëw mais musuma saaga. waaw ma wax nga wax yu dëgër. waaw même tuuti. yu tegginuwul ci moom ak ci yeneen kilifa te mosoo cee dem kaso. nous avons choisi la république. téere bi woon naa la ko danaa la ko indil may la ko gis nga président Macky Sall. lu jiituma dugg ci parti nous avons choisi la république laa ko njëkk a may am na benn texte bu ci jukki def ci discours bu mucc ayib mooy ba mu demee Casamance ba lancer le projet de développement local de la Casamance pour wax la ni man Abdoul Aziz dama dama tay di bind texte di ŋàññi nit di bind texte. même tuuti ma pare waaw mais loolu loolu laa nekk di la différence de contexte boobu laa nekk di la c'est-à-dire. Ah, différence de contexte c'est-à-dire yéen. jamono yi jamono yi jamono yi jamono yi jamono yi Ablaye xam nga lan moo wutale jamono yi Ablaye Wade ci wàllu démocratie ak jamono président Macky Sall mooy jamono yi Ablaye Wade ñoo doon ŋàññi dañu amoon capacité ŋàññi ndax dañu bind ay téere ku ci mel ni Mody Niang ku ci mel ni Abdou Latif Coulibaly ku ci mel ni man ku ci mel ni ndem si yàlla tam euh, Euh, euh, Tamsir Jupiter Diagne Jupiter noonu la Tamsir Jupiter feu Tamsir euh, ndem si yàlla Tamsir Jupiter Ndiaye bari na ñu bind téere jamonoy Macky Sall ba ci Souleymane Jules Diop donc jamonoy Ablaye Wade Ablaye Wade loolu moo ko gënal nga ŋàññi ko ci téere muy sa opinion du tee du tax mu changer politique am parce que fas yéenewul changer politique boobu doxalin doxalin démocrate la mais saa yoo ko saaga mu reenteeg yow ma jox la ci benn firnde ba Talla Sylla tëggee tama ñaawal président Macky président Ablaye waat président Macky Ablaye waat bu mënoon rey Talla Sylla daf koy rey parce que président Ablaye Wade wax ko lu la neex waxeel nu la neex defal sa marche pacifique ŋàññal xulool tojal waaye bu ko saaga bu ko xas ndax mag la moo xam ne ni dafa war warmal boppam te wax na dëgg. donc ñi xaste saaga ci pénc mi. ñooñu la yàlla wax ni bu ñu sax bokk ci débat bi. bay saaga waaw mais waaw mais kon ñooñu yoon moo leen topp. Abdou Aziz mais c'est pas des prisonniers d'opinion dañu saaga. yoon ni ku saaga. daan yi leen lay teg Abdou Aziz bu leen jaawale. débat bi ci penc bi kenn waru cee encourager ŋàññi ak saaga. on veut un débat sain. waaw civilisé et argumenté. léegi mais nit bu juumee. waaw même les criminels ont ah, des droits. bu juumee mën nañ ko baal. non waxuma baal sax. nit bu juumee. yoon mu daf koy teg ci loxo. fi mbir mi lajjee mooy nañ leen di tegee ci yoon yoon ci boppam dafa lajjal yoonam c'est-à-dire respecter ñu ay ay ay procédures dañuy jël nit rek ñu ne kii dafa def offense au chef de l'État kii dafa appelé à ça ñu jël la yóbbu la kaso juróom benn weer juróom ñaari weer juróom ñetti weer dama lay wax leen est-ce que mandat de dépôt waa mënuloo ko am ci Sénégal te juge décidé wu ko waaw waaw yow boo demee ci tribunal le juge ba décidé da nga xam nga man dama tudd pacte institutionnel. mais dafa am code pénal dafa prévoir. waaw ay ay dispositions. waaw mën na nekk dafa prévoir ay daan. mais mën na nekk dafa ay procédures. mën na nekk procédures yooyu la ñu respecté mën na nekk dafa naan tuuti ma wax la. su fekkee ni am na procédure bu ñu respecté wul jaarul yoon dama bëgg nga teg ci sa nga teg ci sa baaraam boo ci tegul sa baaraam dama lay yuuxal fii ak ay weer nga teg ci sa baaraam bu korogee foo teg sa baaraam te mu firndewuñ war nga fa teg sa baaraam dama naan la gàcce ngalaam c'est euh, may mun a ndax def nga sa liggéeyu journaliste mais dama la bëgg a wax ni amul benn yoon boo xam ne nii yoon sañ na jël doomu jàmbur dugal ko kaso te amul fu juge bi teg baaraam ni moo tax mu dugal ko fa kaso gis nga ñi ngay wax bari na ci ñoo xam ne nii ba ñu commencé saaga kenn xamul kañ la ñàkk wa ñàkk bàyyee saaga moo tax li leen ci fekk fekk leen ci mais tan lu gi ci war mën naa seede ni jiital réew mi tànqat nu ko ba yaay ba tay ay saaga yu ko kenn mus yoo xam ne ni kenn musu ko saaga président ci mim réew dire quand quand quand quelqu'un comme Bassirou Diomaye dit mm-hmm. euh, on assiste à une clochardisation de la justice mm-hmm. du saaga no xalaatam la ce que Diomaye mënoon na ko waxee neneen mais noonu la ko waxee ce a dit waaye ouais. où il parle d'anthropophage si je ne sais pas ndax yow fekk di wax ak ndëm wax bind ci benn post Facebook ba tudd ndëmm ndëmb gi mu koy féetale kilifa mais kooku bul demee ci yoon yoon teg ko daan